Màggal Touba 18 safar ku ko wax wax ay gan yu bàyyi ko fenn fu nekk ci àdduna bi di ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba résidence Cheikhul Khadim Daarul Mannaan di benn ci bërëb yi nga xamante si ni bërëbi Serigne Touba la te ay gan di fa dal at mu nekk di bàyyi ko fenn fu nekk ci àdduna bi commission sociale bu Touba ci kanam jóg ngir taxaw ci lépp loo xamante si ni ñeel na bâtiment bile jëm ci wàllum cet ni mu ko defee woon daaw. moo tax mu indi leen lu toll ci téeméeri bale yoo xam ne ay bale raquette la waaye tamit téeméeri bale yoo xamante si ni ay bale moquette la téeméeri bale yoo xamante si ni ay bale nylon la waaye tamit fukki kees ak ñaar yoo xamante si ni lave vitre la def fukki kees ak ñaar yoo xamante si ni savon liquide la def loolu la lépp mu teg ko ci loxol Serigne Djily Niang mi nga xam ne moom la Serigne bi dénk lépp lu jëm ci entretien wu bâtiment yi le ngir résidence Cheikhul Khadim bi le nekk fii ci Daarul Manaan cet gi moom kenn du ko laam laamee ku la defal lu baax sañ nga ko sant waaye ku def lu baax jëmee ko fa mu war a jëm kooku war a gën a mat a sant waawate ne fii ngeen ko jëmee muy ci barab bi ci kër Seexul Xadim ci Daarul Manaan loolu nag du laa xar xarwaa ndax nageen sii daaw lañ toogoon fii maa ngi xool liste bi léegi lu ko raw daaw mën naa ne ñettam ngeen fi indi woon daaw li ci gën a yéeme ni muy demee ndax waxtu muy wax danga nga naa ma seetal noo ko bëggee noo bëggee ngay wax ñu defee ko noonu mu doon loo xam ne tamit lu munta ñàkk la ndax ni ko la sëñ bii doon wax léegi waxee du lu ñuy jëfandikoo ci màggal gi rek yam ci waaye li ñuy jëfandikoo ci at mi lay doon ndax bu ñu noppee dañ koy séddal ci bâtiment yëpp fu ne danañ fa yóbbu ab lim ñoo xam moom la ñi koy yor ci nettoyage bi ak yu mel noonu di jariñoo ba mu dellusiwaat incha allah kon ñi ngi yëgal mbokk yëpp ne commission sociale bi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ci kanam ñi ngi leen di jottali ak cant ak ndax nii ñu koy defee ni ko bàyyi sëriñ waxee léegi doonut lu ñuy def fii rek ci barab bii waaye fii ci benn la ci barab yi ñu koy def te lii doon li ci gën a tuuti ndax lii lu jëm man naa la loo xam ne du feeñ la lu jëm ci biir bâtiment yi la waaye ci jëm mi nit ñi nekk ci biir kër gi tamit nii la ñu taxawee ci ñoom la ma ko waxee woon daaw rek dama naan ñeen dangeen ñoo noppal ndax loo xam ne ñun la war bu ngeen ko defatu ni danañ ko jéem wala boog buñ ko mënut dana aju ci kaw sëñ bi ngeen wàccee ñu ko wàcceel ko sëñ bi kon nag mag di waxee ne li nga ma wàcceeb coono yàlla neen yàlla wàcce na coono waaye nii ngeen ñu wàcceeb coono wàccee ko sëriñ bi wàccee ko dong yi mu koy liggéey la tamit yàlla neen yàlla wàcceeb noonu coono barkeb Seexul Xadiim di sant bu baax a baax bu loolu jàllee tamit ma benn kàddu boo xam ne nag amoon yéene tamit gis microbe ci kanam ba uh, yëkkati ko ci ginnaaw soññee gi may soññu mbooleem koo xam ni ab murit nga ñu jàpp ci liggéey bi muy Touba ci kanam rawatina ci commission sociale bi ndax sikku wut ne lépp loo ci dugal muy dërëm ba lu mën a doon boo ko ci defee sikku wut ne nit dana ko jariñoo te defe naa ni nit defut du gën a rëy sëñ Abdou Khadre daan wax ne eh, jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi te lii moom jaamu yàlla gu wóor la goo xam day dem ci jaamu yàlla yi loolu moom ñun mën nañ ci seede ndax am nañ ci benn benn fii ci kër gi ñoo xam ni koor kor yi tabaski ba ci màggal fii ñu leen di feete ak ni ñuy jëf jëflante ñoom te bu ñu leen ko defalutoon it lu munta ñàkk lay doon danañ ko jéem ñun ba ñu yan ko sëñ mu def ko kon loolu faw ñuy wax ko kon nag ñu ngi soññ murit yëpp ñu xam ne daal mbir la moo xam ni ku bëgg a liggéeyal yàlla daal buntub liggéeyukaayu yàlla mu ngi nii damay faral daan wax wax naa ko ci benn benn café bu ñu mas a def ci Touba ci kanam ne benn daaira wala menn mbooloo moo xam ni taxaw na nii bu Touba ci ba fii mu agsi ne lim jëfagun mu ko jëfagun man gisaguma ko wax dëgg yàlla ko fi ma a taxaw rek da taxaw ngir def ci sa bopp wala ngay defar yu mel noonu waaye jëf joo xam ni moom kenn mënu koo waat moom mën naa ne dañ naan dañ tàmbalee ci Touba ci kanam yem ci Touba ci kanam kon nag loolu bu amee ndax ñun mbool ku ci bénéfice wut amut ndax kuñ ko deful sa buntu kër def ko ci wala ñu def ko ci sab koñ da nga ko def foo xam ne da nga fa jaar teg ci sa bët moo xam lamp moo xam dispensaire moo xam aw moo xam sëkk moo xam mankum ndox ak yeneen ak yeneen moo xam ndimbal li ñu yëkkati jox la ko baa ñu jox ko sa mbokk moo xam ni buñ ko defutoon yow war na la Touba ci kanam moom ku ci jàppati da ngay sonal sa bopp rek ndax sëñ Muntaxa moo fi sëriñ Touba barki démb maa gis opération wàllu gi nam ci taxawee gis naa beneen image boo xam ni dana yëkkati ab lim daane lii maa ko def defaaleel ko téeméeri kon keneen koo xam ni yaa ngay wax leneen yow la waaye defe naa bu la sëñ Tuubaa joxee loxo keneen ku la xañ loxo rek loxo boobu damay jàpp na loxo barkeel lay doon ba la xañ rek kon nag ñi ngi sant ñëpp sëñ Murtala di gërëma bu baax a baax di ñaan it suñu borom gën laa jàppale gën laa dëgëral taxawaay bi rafet na lool su la neexoon def ni ñaneen ndax sañ nga ko te boo ko defoon ni duñ ne lu tax waaye nag danga jël sa bopp di fas yéene liggéey te lii tamit du lu bees ci moom ma xamal leen ko ndax daayira Moukhaddamatoul Khidma bi ci jumaa ji avant lii di ñëw nii la ci daan taxawee waxtu wu nekk lu ñu mës a yittewoo bu ko yëgee dana dana yëkkati alalam def ko ci kon mel na ne Serigne Touba ji muy woote dëgg la ci moom te ñor na ko te yàgg naa dox jëm ci bi Touba ci kanam taxawet ku ne gis na taxawaay bi ñu ko yóbbu ci Serigne ndax bu ñu ko defatoon tamit moom ñoom la war te danañ ko def kon nag man nee na wóotu nga leen ci. waaye bu am solo bile lenn rek la ci li nga xam ne moom la commission sociale bu Touba ca kanam bi taxawee at mu nekk ndax màggalu ren gi samp na ay waañ ci sancaani waaye tamit ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw danañ fa dem lu mel ne Diourbel ak Mbàkke indi leen ay ndimbal yu ama am solo yoo xamante si ni mi ngi bàyyi ci li nga xamante si ni mooy koppar yi commission sociale bu Touba ca kanam di dajale te muy jaarale ci banque UBA wala sax ci numéro Wave bii wala numéro Orange Money bile. commission sociale bu Touba ca kanam jaamu yàlla ci jaami yàlla yi